Assalamualaikum mbokk yi maa ngi tudd Mamadou Faye euh, bokk ci mouvement des cadres patriotes ci bu ci biir mouvement des cadres patriotes boobu ma bokk ci commission bu ñuy bonne gouvernance patriotisme et citoyenneté bëggoon amal ak yéen benn waxtaan ci Damu citoyenneté dama koy tënk nag ci ñetti tomb tomb bu njëkk bi damay xool ci euh, xew-xew yi am Sénégal yang jàngat lañ ci mën def ci wàllu citoyenneté su ci lolu ma lan mooy lëkkale état ak citoyen gannaaw bi ma xool ñun fan lañ ci toll ak naka la ñuy def ba gën a dooleel wala ba gën a suqali citoyenneté bu ñu xoolee ci wàllu taarix dañuy gis ne bi tubaab yi ñëwee senegal dañu fa fekk ñoo xam ne nii ay buur lañu woon yor ay royaume bi ñu jàmmaarloo ak ñoom ba nga xam ne ñu ci bëri ci ñoom lañ leen a faagaagal dañoo jël ñi nga xam ne ni ñoo waroon a nekk ay buur ci royaume yooyu ñu jël leen def leen ay chef de canton foofu mooy fi nga xam ne nii fala la tubaab bi jaar ak suñu maam yi pour que ñu nangul leen seen kiliftef pour que ñu adhérer reconnaître la nouvelle forme d'organisation sociale et politique euh, loolu nak moo doon wéy ba diggante ba 60 ba bi ñuy am indépendance. léegi loolu di wéy ba 1960 Sénégal am li nga xam ne nii moom mooy indépendance am bi ñu amee indépendance ki nga xam ne nii moo njëkk nekk njiitu Sénégal ñu di ko wax Léopold Sédar Senghor. ku ne xam na ni moom ci diine bi mu bokk christianisme la ci réew moo xam ne nii lu ëpp ci ñu fa yeewoo ay jullit lañ te loolu noonu mosul poser problème musuñu dégg benn discours mbaa ñu gis benn att buy wane ne loolu posé na problème te sax booy seet ay kilifa yi nga xam ne nii ci diine islam lañ bokk bokkoon nañ ci ñi nga xam ne nii ñoo ko doon gën a jàppale jàppale boo xam ne nii jàppale bu fës la woon loolu nag moo doon wéy diggante 60 ba année 80 jàpp 2000. Lagi, yan jangat lañ mëna def ci enseignement yoy nga xamne mom lañu mag ñi jangalon ci ne bu ngeen waré tan jitu rew na ngeen xol na ngeen jital li nga xamne mom moy intérêt supérieur de la nation lolu buñ xolé xew xew yi nga xamne mom mo mujjé am Sénégal dañuy gis ne askan wi delu nañ ci ginaaw bu baaxa baaxa baax nak dafa am ay ñett ñetti ñaar ba ñetti mbir yo xamne ni ñun japp nañ ne bokku na ci li tax citoyenneté wala lolu nonu ñu mag ñi jangalon xawna na sax bi ci jëkk mooy école bi ku ne xam na ne école moom la tubaab di tuddee wala yenn ci borom xam-xamu tubaab bi moom la ñuy tuddee l'appareil idéologique de l'État te dañu gis ne Sénégal suñu système scolaire ni mu tëddee dafa am ñoo xam ne dañuy teel a génn école et que bu ñu génnee école dañuy nekk ci seen mbiru bopp ñu ñu tuddee leen ñi nga xam ne nii c'est les acteurs du secteur informel et que ñoom derrière état amul dara luy dox seen diggante ak moom et que état du leen jàppale benn yoon et que bu ñu feebaree ñooy faj seen bopp état du jël benn dispositif boo xam ne ni dina tax ñu jëlee ci ñu jóge ci niveau bi ñu nekk dem ci niveau supérieur loolu nag am na benn jeexital bu muy def ci seen sentiment de citoyenneté beneen bi nga xam ne nii buñ ko ci mën nañ ko ci toftal moom mooy ñi nga xam ne nii dañ leen di fal njiitu réew ñu ci bëri bu ñu xasee nekk ci boppu réew mi li leen di gën a yitteel mooy nan la ñuy def ba yàgg fi ñi nga xam ne nii ñoo leen di jàppale ci loolu ñuy fexe nu ñu leen nu ñu leen seddee li ñuy tuddee ay marché public di jël ay institution di ko créer di leen ci dugal nga xam ne euh, day mel ni benn groupe bu ndaw rek moo nekk di di di jëriñoo li nga xam ne moom la ñëpp bokk loolu tamit am na jeexital bu bu bu doy waar bu muy def ci doomu réew bi nga xam ne dana leen gën a soril seen réew dana tax li leen seen réew jaraloon wala fi leen seen réew tollu woon wàññeeku bu baax a baax léegi ñu ñëw ci ñaareelu tomb bi moom mooy Euh, le rapport entre état l'état et le citoyen lan le lëkkale état ak citoyen bu ko dee faram-fàcce ci sukkandiku ci théorie yi nga xam ni mooy les théories contractuelles euh, day mel ni état mooy mbolo moo xam ni, nii dañoo daje nyom euh, ñëpp jël seen baat denk ko kenn ci ñoom walla ñenn ci ñoom kon mu mel ni kooku noonu gannaaw bi su jëlee décision dafay mel ni ci seen baat la ko jëlee kon suñu ko nangulee dafay mel ni seen bopp la ñu nangul su nee Euh, dafa am euh, danger bu ñëw ci ci dëkk bi wala ci réew mi et que kenn ku nekk bu juróom-ñetti waxtu jotee na nga tëdd dafay mel ni soo ko nangulee dafay mel ni sa bopp nga nangul ndax yaa ko dénkoon baat bi pour mu sàmmal li nga xam ne mooy sa alal wala sa bakkan léegi loolu mooy li nga xam ne moom mooy lié état ak citoyen waaye nag obéissance boobu noonu nga xam ne moom la tubaab tuddee obéissance consentie pour mu mën a am dafa am ñaari mbir yoo xam ne du ñu mën a ñàkk benn bi mooy Euh, li ñuy wax une communauté une une une une population fortement intégrée à la communauté nationale wala beneen bi un fort sentiment de citoyenneté Madame, ñoo xam ne filen fi leen seen ak filen leen seen réew li len seen rew jaral dayo bi foko nat rek wessu nako ñaar yooyu moy mën dajé bu ko défé obéissance bi nek une obéissance consentie légui nak lolu ñun citoyenneté bi ñun fan lañ ci toll suñu xoolee def ay jàngat ci xew-xew yi nga xam ne moo mujjee xew rawatina xew-xew yi nga xam ne nii moo xew ci élection yi ñu génn élection yi mujjee am Sénégal dañuy gis ne parparloo bi fës na lool loolu nag li ko waral mooy day mel ni léegi jiitalatuñu intérêt supérieur de la nation et que mbiru parlo ak mbiru xiiro ak ŋaayoo dafa bari doole lool ci réew mi léegi euh, exemple bi ñu ci mën a joxe mooy élection yi passé dem nañ bay gëstu sax euh, kenn ci candidat yi di ko laaj ndaxam ban ban pas-pas mooy pas-pasam ak fan la bokk ci wàllu xeet loolu nag day wane ne rek li nga xam ne nii moom la ñu mag ñi jàngaloon ci wàllu citoyenneté dellu nañ ci ginnaaw bu baax a baax a baax léegi euh, gannaaw bu ñu ci delloo ginnaaw day laaj aussi ñu rappeler nit ñi rappeler sénégalais yi ne leen baat boobu noonu ñuy tuddee nation li muy tekki mooy ay doomu réew yoo xam ne nii dañoo bokk taarix boo xam ne nii dañ ko naw lool. dañ ko fonk lool ndax dañ ci am ay jaloore ak ay ndam yu rëy rëy taarix boobu ñu bokk nag tax ñu bokk di yeewoo ci benn réew bi gannaaw bu ñu bokkee di yeewoo ci benn réew bi ñu am yéene doon benn wéyal ànd bi doon benn boobu nag wéyal ànd bi dafay laaj bennoo dafay laaj lépp luy xiiroo ak ŋaayoo ak parparloo ñu fexe nuñ ko nuñ ko génnee ci seen biir fexe ba dox jëm ci loolu nga xam ne nii moom la ñuy tuddee un destin commun léegi gannaaw bi ñu seetloo ne fi ñu suñu réew toll ak li ñu suñu réew jaral dellu nañ ci ginnaaw bu baax et que xaw na na sax naka la ñuy def ba suqali ko bi ñu toogee def taxaw seetlu am na ñaar ba ñetti mbir yoo xam ne jàpp nañ ne bu ñu ko tëraloon xëy na dana gën a dooleel euh, li nga xam ne moom mooy citoyenneté bi ci jëkk moom mooy jot na pour que ñi nga xam ne nii ñoo war a jiite réew mi ëllëg ñu jéem a toog xalaat réfléchir ci nan la ñuy def ba instaurer un service militaire obligatoire service militaire obligatoire boo xam ne nii danañ fa jàngal ndaw ñi lan valeur militaire yi ay euh, unité nationale défense de l'indépendance et de la souveraineté nationale beneen euh, mbir bi nga xam aussi ñi war a mi war nañ euh, un service civique pour ñi nga xam ne def service militaire boobu et que am nañ ay valable euh, ñu defloo leen service civique service civique boo xam ne nii euh, même programme lay doon que service même programme théorique lay doon que service militaire bi ñu boole ci li nga xam ne nii moom mooy euh, ay travaux d'intérêt général ñu jàngal fa ndaw ñu aussi le sens de la protection du bien commun nga xam ne bu ñu fa génnee dana gën a dooleel seen sentiment de citoyenneté beneen point bi nga xam ne nii jàpp nañ ne aussi dina doon lu am solo mooy am na discipline bu ñuy tuddee éducation civique ñu gis ne discipline bu ama am solo la donc day laaj aussi ñu xool les acteurs de l'enseignement ñi nga xam ne nii ñooy yëngu ci wàllu jàng ak jàngale ñu indiwaat programme boobu gën ko yaatal gën ko développer gën ko méngale ak sunu sunu sunu jamono bu ko defee ñu yaatal ko euh, di ko jàngal xale yi euh, du CI à la classe de première nga xam ne citoyenneté dana ancré wu bu baax ci seen mentalité euh, te ndaw ñi Sénégal dañoo doon lim boo xam ne nii ëpp donc loolu noonu day doon loo xam ne ni dafay ancré wu ci seen mentalité ñu màggaale ko ñett yooyu lañ jàpp ne euh, jot na pour que ñi nga xam ne ñoo war a jiite Sénégal ëllëg ñu jéem ci xalaat jéem a xool nuñ ko instauré bu ko defee ñu gën a dooleel li nga xam ne moom mooy citoyenneté léegi ñu ñëw ci naka lañ koy financer. Euh, ku wax service civique wala service militaire dana laaj ay koppar ndax ndaw yi danañ fa nekk lu topp ñaar ba ñetti weer euh, kon dana laaj financement bi ñu toogee ñu xalaat ñu def gëstu li nga xam ne moom lañ gis comme piste de financement ñett la bi ci jëkk moom mooy euh, ku ne xam na ne président de la république moom mooy le chef suprême des armées et que président de la république ci boppam am na lu ñu ko jox lu ñuy tuddee caisse noire caisse noire nekk benn caisse boo xam ne nii ay fonds yoo xam ne kenn du ko euh, gëstu kenn du ci def enquête et que moom rek moo ci am accès donc pour la symbolique moom à défaut de supprimer cette caisse noire là mu jël ci lu takku ngir financer li nga xam ne ni moom mooy service militaire bi euh, service militaire boobu noonu wala service civique bi euh, beneen piste de financement bi nga xam ne moom lañ jàpp moom mooy yenn au conseils yenn au conseil yi nga xam ne nii bu ci mel ni au conseil des collectivités territoriales nga xam ne ñu bëri ci sénégalais yi xamuñu lan lay jariñ et que gisuñu ci seen bopp xamuñu lan la leen di jariñ au conseil yooyu aussi euh, bu ñu ko supprimer woon danañ ci jëlee koppar danañ ci jëlee ay koppar yu takku yoo xam ne nii dina mën a financer li nga xam ne moom mooy service civique bi walla service militaire boobu noonu euh, walla sax. Euh, assemblée nationale votel le budget budget boo xam ne dañ ko koy alloué nga xam ne moom mooy financer euh, le le rassemblement autour du drapeau national mu nekk loo xam ne nii lu ama ama am solo la ndax réew bu fekkee am na njiit yu baax am ay ressources euh, l'ENREG une population fortement intégrée à la communauté nationale une population avec un fort sentiment de citoyenneté une population qui est le vecteur qui va permettre de passer de la richesse à la puissance